kii kii ñoo ko moom. kii ñoo ko moom. kii ñoo ko moom. non non koy. kii ñoo ko moom. kii ñoo ko moom. lii moom personne ne peut rien lii kenn mënu ko. gars yi wàcc leen damay accéléré oto yi. ah accéléré fii moom remercie moom remercie wàcc leen wàcc leen de yow remercie. jo day dem day départ de c'est ça tànk bi daa diis. jo jo toogal saa accéléré ak sa bañ de. liberté Yo, Sare, Sare ekitire. Sare ekitire. Ha? ¿Ah? Este ekitire. De ekitire, de ekitire. Sıfır ne tek taşı tanıdık. Taşı tanıdık. Taşı tanıdık. joo saa day day jug aw na waxal ak gars yi day jug day jug day accéléré dox accéléré vraiment ngeen déglu jàppale leen jàppale leen bu baax. ñun Sonko mooy amal njëriñ ah. rek moom Sonko. rek nag c'est c'est wóore. bi nee na su leen ko Makidenna! Oh! Medina su leen ko Medina Medina su leen ko Medina Medina su leen ko Medina liggéey naa su leen ko. kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laal dem leen foofu désolé eh ak Zazori eh yàlla teg ci loxo gars yi xool dañ di wax ci yéen ngeen yëpp comme ça seen gars yi xaw ma. dañ koy gunge ba coordonné si biir biir oh. dañ ko boole dañ koy gunge. xoolal ma la wax rek. man maa la ñaan lool def leen li ma leen wax. waa ci leen quoi gars yi on descend. contre Rabat lu leen oo oh. uyu leen ko fële non non non policier bu mu dugg daay si policier moom ça dépend même la police idéologique C'est le plus important. C'est le plus important. C'est un, un, projet pour nous. C'est pas la personne, c'est pas son projet, c'est le projet. On défend le projet.

Son...